boo boo teree ki nga xam ne moo ne ci kër gi mu liggéey ngay xooli keneen koo xam ne man ci àll ba mu liggéey nga topp loolu tax. waaw léegi loolu mooy seen man bëri jàngatu bu bëree bu ma ne dama ne yow dépasse ni ngay ñooy joxe buñ bëree. dafa war a sañse. ñoom dañu xool fi ñu ñëw ba pare di laaj sañse. soxna Bintu soxna Bintu juróomi nit moo. dégg ma rek déglu ma ma pare dégg ma de bëree ko. xoolal yow bu dee jigéen ji boo ñëwee yaa ngi fas yéene takk kaani takk poobar takk jimboo boo demee boo jaayee ba wàcc ndugg ñëw togg nooy defaroo dañ ko utum da ngeen ñuy topp too. wala ñoom da ngay sañse ba ñëwee jàppale. li ma la defaroo xaaral ma tàng la tey dama am fu ma jëm de xaaral ma ñëw wàcc nañ la fa xool nañ keneen. ñu dara seen bët ci koy gileem ngeen boo yëgee da ko yéen ngeen leen ko ci ngeen naan damaa yàq damaa da ngeen doxi seen i soxla léegi nag dañ naan ñaareel aaw bi toog toog ba toog ngeen dem si ñaareel ñaareel ba gën a sonn ñetteel ba ñëw a sonn ngeen ñeenteel toog nag dara kenn du leen topp toog ndax la na ne yéen moom seen nañ leen ba ngeen salaamaaleykum di leen jàmm daanaka ñoom daw nañ question bi de yan lor la liggéey bi am nañ tontu wuñ yan njëriñ la leen seen liggéey di jariñ ci yéen da ngeen honnête nag wax ñoom luñ leen di jariñ ci liggéey bi ak yan lor la leen di yàq. waaw jigéen ñi moom seen liggéey ñun jariñu ñu lu bari dee ci jamono ji. waaw bu bu boo xoolee ci jamono yi weesu. booba jigéen ñi daf daan liggéey liggéey bu wuuteeg yi jigéen ñi jamono jii di liggéey liggéey moom dara baaxu ndax liggéey boo xamee nii yaa jaay yoo xamee nii doy na waar te léegi xoolal léegi ci mbedd bi ci ngay tàppante ci am na ci yoo xamee nii munoo koo ne man naa ci pare mën a am mën a am xëy ba boo xamee nii bubbu war la mënta nekk parce am yoo xam ne pour la fayda jaayu waaw Oustaz Karim sa thème na solo lool laaj bi na solo tamit wax dëgg yàlla jigéen moom bu jëlee ne day liggéey surtout mu ci bureau yi nga xam dafay daje nit ku nekk war naa am comportement boo xamante ne bii dina ko yore ba nga xamante ne bii saafoonte yenn ñi nga xamante ne bii bokkut ak ñoom war mën naa ñàkk foofu ndax li tax liñ naan bukki eh, bu ko bu jabee ko man nañ koy xetee ca doxin wala ndax boo nekkee jigéen nekk si sa bureau war ngaa respecté sa bopp bu baax a baax a baax ah sàmm say cër bu baax a baax a baax ba nga xam ne lii moo la fi nga def ko bu jeexee nga dellu sa kër bañ a nekk di saafonteeg ñoo xam te ne waroo saafonteeg ñoo wala nga nekk di am pause di waxtaan nekk si di di débat ci leneen loo xam ne loolu waru waaw bu fekkee boo boo fi nag nga kër yëpp nga jëm koo def balaa kii nga xam te ni bii moo la fa teg di ñëw ci kër gi nga xam ne dara du fa bu fekkee dafa yàlla da ko dénk borom kër bu fiir def la ma rapport bee wootee ko bi yu mel noonu taxaw ci ko kenn ku nekk xam li nga bëgg ak li nga bañ hmm. waaw bu fekkee na nag euh, bu ñu xëyee ci kër gi ko yóbbu liggéey ci bureau wala mu liggéey feneen papa day jox yaay rek. déedéet xale moom day jàpp ne yaay ba ñu rek fekk yaay ñi sonnoon waaye dañoo dee uh-huh. góor ñi dañoo dee gis nga jigéen soxna Bintu ak soxna def. imam parce que ku amuti ah, ah, argument da ngay yóbbu. ko may ñaari aw boobu mais ku ami argument da ngay ne teg wax wax ju fasul Bintu yi muy wax yëpp ay polémique rek la. niñ koy misaalee mooy ñii liggéey jigéen ñi ñuy wax ci liggéey ah, waxuma la liggéey bi ni mu doy misaal naa léegi ne bu ñu xëyee fajar la ñuy jóg te li leen waroon ñu bañ a njëkk a jóg seen borom ñu njëkk a jóg seen borom kër soxnaam ak kafe te amul sax matt mu ko soxnaam. te mu jàppoon ne bu amee soxna ay mbiram lay gën a baax ndax wax ngeen léegi am célibataire bi muy mel bu amee soxnaam mbiram dafa war a gën a baax mu am soxnaam mbiram gën a bon mooy soxna si fajar lay jóg. dafa ñëwul awoom. fajar lay jóg ma ma rek fajar lay jóg su jógee du ko sax tàgg yanu ak dàmbaam waxoon naa ko dugg ci marché bi risonte xale yu góor yi. law yi jaay lépp boo calculé bénéfice ba motu téeméeri dërëm mu teg ko mu teg ko mu teg ko am nag ngir ndeyal buñ ko dig wala magale wala luñ ko jox bala moo wàcc di dugg ci kër gi añ weesu na bu ñëwee ñu jox ko dépense bi mu dabb daaxee togg ceebu ceeb bu kenn xamul lu mu doon nekkoon ci sa yére loolu ngay toog